voilà euh, madame la maire mën nañu am sa première impression. ah sama impression mooy euh, nous avons voté dans le calme donc euh, depuis ce matin on est en train d'observer et de regarder en tout cas en ce qui concerne Golf Sud le vote se passe très bien donc les gens sont sortis voter donc ñuy wax rek yal nañu ko àggali fii ak 18 heures 19 heures vote bi continuer di dérouler wu dans les meilleures conditions possibles encore une fois ñu ngi lancer un appel à tous ceux qui sont seen biir kër yi wax leen ne xam nañ ni koor gi metti na mais nañu génn voté ji ñu bañ a bàyyi ba fin de journée ñëpp nar a génn di def des rushs muy nar a am ñoo xam ne danañ bëgg a ñu tëj bureau de vote yi ñuy aussi profiter si occasion bi pour lancer aussi un appel à tous ceux qui votent y certains bulletins yoo xam ne dafay collé boo jëlee bulletin bi dangay ngay jëlaale ñaar te doo ci rendre compte donc booy dugal sa bulletin si urne bi si si enveloppe bi nga xool bu baax ndax dugaloo ci ñaari bulletin parce que c'est des risques d'annulation du vote Euh, bi nga demee si biir amoo benn jafe-jafe. sant yàlla amuñu benn jafe-jafe et on va continuer à faire le tour de tous les centres yi fi nekk. ici à Golfe et dans, la, dans le département pour voir ce qui se passe réellement et nous espérons que ça se passe bien en tout cas pour l'instant ce sont les informations que nous avons euh, que ça se passe bien ñu ngi wax ñëpp nañu génn voter nous avons aujourd'hui un vote historique votu tey bi Sénégal day fal te Sénégal dafa yàgg fol li donc ñu ngi wax ñëpp nañu génn accomplir seen devoir citoyen parce que lii dafa bokk ci li nga xam ne euh, c'est l'un des plus beaux moments pour un peuple mooy fal sa président fal sa njiitum réew élection présidentielle fête la donc tey Sénégal mooy feetu Sénégal mooy tànn ki nga xam ne moom la bëgg mu présider à sa destinée pour les cinq prochaines années dañ fi nemmeeku ne mag yi ñoo fi euh, ni fii euh, man je ne vois pas ça je vois que mag ñu ngi fi xale yi ñu ngi fi et c'est c'est c'est vraiment inédit souvent dañu daan wax ñi xale yi ñu génn voté mais ren jàpp naa ne xale yi ñoo moom élection bii parce que xam nañu seen avenir moo nekk en jeu suñu yaay ak suñu papa yi historiquement seen vote c'est toujours un acquis dañuy voter parce que c'est quelque chose boo xam ne dafa bokk ci ñoom mais ren li bees ci done bi mooy jigéen ñi génn nañ xale yi génn nañ te ñun jàkkaar nañ ni tey dina am un taux de de de dina am taux boo xam ne dina élevé trop ci ci ci vote bi te ñu ngi ñaan yàlla mu nekk en notre faveur en la faveur de notre candidat le président bassiri Diomaye Faye di ñaan yàlla mu nekk def ko élection à un tour li ñuy wax rek mu nekk un référendum le référendum bi nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy xaar pour balayer ce régime pour changer de cap pour prendre une nouvelle direction pour le Sénégal. sama impression mooy euh, nous avons voté dans le calme donc euh, depuis ce matin euh, on est en train d'observer et de regarder en tout cas en ce qui concerne Golf Sud le vote se passe très bien donc les gens sont sortis voter donc euh, ñuy wax rek yal nañu ko àggali fii ak 18 heures 19 heures vote bi continuer di dérouler wu dans les meilleures conditions possibles encore une fois ñu ngi lancer un appel à tous ceux qui sont seen biir kër yi wax leen ne xam nañ ni koor gi metti na mais nañu génn voter ji ñu bañ a bàyyi ba fin de journée ñëpp a di def des rushs muy nar am ñoo xam ne dinañ bëgg a voter ñu tëj bureau de vote yi ñuy aussi profiter ci occasion bi pour lancer aussi un appel à tous ceux qui votent il y a certains bulletins yoo xam ne dafay coller boo jëlee bulletin bi da ngay jëlaale ñaar te doo ci rendre compte donc booy dugal sa bulletin si urne bi si si enveloppe bi nga xool bu baax ndax dugaloo ci ñaari bulletin parce que c'est des risques d'annulation du vote Euh, bi nga demee si biir amoo benn jafe-jafe. sant yàlla amuñu benn jafe-jafe et on va continuer à faire le tour de tous les centres yi fi nekk. ici à Golfe et dans, le département pour voir ce qui se passe réellement et nous espérons que ça se passe bien en tout cas pour l'instant ce sont les informations que nous avons euh, que ça se passe bien ñu ngi wax ñëpp nañu génn voter nous avons aujourd'hui un vote historique fatu tey bi Sénégal day fal te Sénégal dafa yàgg fol li donc ñu ngi wax ñëpp nañu génn accomplir seen devoir citoyen parce que lii dafa bokk ci li nga xam ne euh, c'est l'un des plus beaux moments pour un peuple mooy fal sa président fal sa njiitum réew élection présidentielle fête la donc tey Sénégal mooy feetu Sénégal mooy tànn ki nga xam ne moom la bëgg mu présider à sa destinée pour les cinq prochaines années. Madame la maire euh, Euh, yaakaar nga euh, man je ne vois pas ça je vois que mag ñi ñu ngi fi xale yi ñu ngi fi et c'est c'est c'est vraiment inédit souvent dañu daan wax ñi xale yi du ñu génn voter mais ren jàpp naa ne xale yi ñoo moom élection bii parce que xam nañu seen avenir moo nekk un jeu suñu yaay ak suñu papa yi. historiquement seen vote c'est toujours un acquis dañuy voter parce que c'est quelque chose boo xam ne dafa bokk ci ñoom mais ren li bees ci done bi mooy jigéen ñi génn nañ xale yi génn nañ te ñun jàkkaar nañ ni tey dina am un taux de de de dina am taux boo xam ne dina élevé trop ci ci ci vote bi te ñu ngi ñaan yàlla mu nekk en notre faveur en la faveur de notre candidat le président Bassirou Diomaye Faye di ñaan yàlla mu nekk def ko élection à un tour li ñuy wax rek mu nekk un référendum le référendum bi nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy xaar pour balayer ce régime pour changer de cap pour prendre une nouvelle direction pour le Sénégal.